gis nga ki di marche arrière ni bes buma lalé dina ko tapas indil ko ay problème ah mu luma ci xam kon yow la de ko kat bi la luma ci xam yow de bula nexé neexee ma yow de bula nexé mbeuk ma yow bula nexé mbeuk ma bula nexé mbeuk ma <laughs> xolam mbeuk ma na auto bi mok maa nan ki di ki di marche arrière bes buma lalé ha ah. <laughs> buma lalé la la la laa <laughs> yow mi lay waxal <laughs> mbeuk ma da ngay génneel gon da nga sañ li tay gon nga xewal je descends tout de suite mbëggeel bu don drogue overdose na s'il te plaît be yo kuko, maa love laa yeey